asalaamaaleykum. maaleykum salaam. chéri koko maa ngi lay nuyu. delloo naa la fay. di la ci àjjuma ji. yal nañu ko fekkee yu tey la. Mm-hmm. en tant koo xam ne bénéficiaire nga léeg-léeg da ñëw foofu di jël foofu ay oma ay madaar di jaay. Euh, boobu léegi ñu gis yaa ngi yéenu ci Yaye Dia Agro vraiment yaa ngi dem di jël di fay di ñëw di liggéey ñu waxoon tey ni ñu ñëw seet sa palace Mm-hmm. nga xool yow Yaa Jaa Agro fi nga ci duggee ba léegi ban njëriñ la ci gis ak ban njëriñ la ci def ak nan nga ak jabaru jabaru Modou Gueye madame Gueye Fat jigéen yow noo ko ak loo ci waaw man de gis naa ci sama bopp continue gis naa ci sama ndax ñëw naa fa yaa fa yebal sax yaa ma fekk sama place wax ma ko ma dem ba ma ñëwee itam ma ñëw jël fa ay omo ma daar ay meew ay yi ñuy ndugg yëpp ji jigéen omo batipuwaay yi yëpp jël naa ko ñëw jaay di fay mu jeex ma dellu siwaat jëlaat ama su ma ci gisul woon sama bopp damay toog moo tax ma dellu si waat ñëw jëlaat fas yéene nag fay bu jeexee ma dem jël man gis naa ci sama bopp xam naa ne baax na jigéen ñi ñëpp ku bëgg a départ pour liggéey man nga fa dem ndax soo demee 4000 ngay joxe ak ñaari photo léegi nag yokk nañ ko set mille la ak ñaari photo parce que dafa am ay yeneen kaar ak yeneen xéewal yu ñu ci boole. Mm-hmm. waaw. léegi ma la doon laaj tey ni ngay demee yaay jaa ak jël mbaa ni nga koy fayee. mettiwul ci yow est-ce que indilu la coono yàqalu la dara ci sa liggéey bi ngay def. déedéet yàqalu ma dara parce que boo ma doon wax nan nga ko mën a fayee ma ne nangam may fay noonu ba jeexal bi ma ñëwaatee itam ma yokkaat nag ndax dama doon joxe par deux après ma dellu ci bugg mu gaaw ma def deux mille cinq cent mais yàqalu ma dara moom ci sama liggéey waaw ndax su ma toogee su dugal wéef laa koy dugal. te numéro nga koy dugal. man daal gis naa ci sama bopp te su ma sañoon jigéen ñëpp itam takku dem fa gis fa seen bopp ndax ndimbal la. waaw man daal jàpp ni madame dimbali jigéen ñi ngi leen di jàppale pour ñu mun a seen liggéey bi ñuy ñu mun a gis seen bopp. waaw moo gën ci kanam. waaw tey jii doon jigéen ñi fay ñëw ñu leen di financé ñuy dem di liggéey. lan xanaa bu ñu ñëwee jël ñu jox la jom ja nga am ba ñëw jël ko amal jom jooju delloo ji respecté ko bu ko defee doo am benn problème ndax saa yoo soxlaa boo ñëwee ñu jox waaw saa yoo soxlaa boo fayee boo jeexalee boo soxlaa boo ñëwee dañ lay jox loolu la kon nag bu ñu lay jox pour di la pour nga dem liggéey man ci am dara danga nga war itam lañ la jox itam nga cay dugal waaw fay ko nañ la ko waxee su ko defee du am benn problème mm-hmm. ndax da ngay jël sa moroom jël mm-hmm. waaw boo lëgee keneen ñëw mm-hmm. loolu lañu ñu bëgg ku la gis xam ne yaa ngi liggéey mu ñëw moom it bu ñëwee bu defee ni nga def rek li li nga am lay am waaw euh, tey jii may wax ak yow euh, madame Faye loolu yëpp bu ko mënee tey yàlla ak borom këram mu ko ciy jàppale gannaaw madame Faye yàgg na ci social Mm-hmm. loolu mbiram la woon depuis xamante wala monsieur le maire ba yàlla boole ñu sëy mm-hmm. mais day jàppale borom këram vraiment tamit yàgg na ci lii mais tey borom këram di ko gën a doole jàppale tey moom nga xam ne mooy maire gox bi ñu nekk euh, nekkal fi président di ko liggéey liggéey bu rafet bi tey def lu rëy ci ko tey jii lan ngay wax ci moom liggéey bi nga xam ni moo nekk ci ginnaaw madame Guèye dooleem ak dooleem madame Guèye ñu jàppale population bi de ak département bi ak Sénégal ak Pôle. xanaa lu baax ndax Modou Guèye man xam naa ko avant fii avant muy def social bi nekk impolé maa ngi ko xam sama sama kóllël ma yoboo ma ne maa sama doom la xam na ma bu baax fu ma gis jox ma cër nuyu ma ñaari loxo sama yaay na nga def maa ngi yaayam kóllëre la ñu ma suñu tàggu min yu ba min wi këram sama kër ndeysaan kon sama doom la li ma dégg mu di ko def mu neex ma moo tax sax ma ñëw ci foofu xaw ma waaw ba ma dégguma woon sax jabar ji moom rek laa déggoon ñu moom mm-hmm. waaw moo tax ma daal di fay ñëw mm-hmm. pour jàppale ko mm-hmm. euh, tey dafa am loo xam ne madame daf ko ci yokkaat moom nee moom bu sañoon daal jigéen Sénégal yëpp dañuy gis seen bopp ba tax na dafa am leneen lu bees loo xam ne da koo génne ci Yaya Dia loolu ñu ngi koy tuddee RIAD RIAD dafa di projet boo xam ne mbooleem koo xam ne yaa ngi yaay jaa Agro nga ngay ngay liggéey ba commencé di fortaatu ba am doole dafa am lu ñu teg loo xam ne weer bu nekk junni ngay cotiser junni boobu ngay cotiser chaque juróom benn weer dañuy def tirage bu ñu defee tirage ñu génnee juróomi billet mag génnee fukki terrain génnee fukki oto génne ñaar fukki millions ak juróom yoo xam ne ñaar fukki nit ak juróom lañ koy séddale génne vingt millions yoo xam ne dañ koy jox ay partenaires yu jóge Europe képp koo xam ne am nga lu lay metti feebal boo mën a am yaay ja dina la mën a faj loolu lañ tuddee Riyad loolu nag muy mag muy ndaw ak képp ku mën a doon ma Guèye nee na ubbi na ko pour ñu def social xam nga ñun yaay ja agro social la hmm. mais dañ cee boole solidarité sociale plus solidarité yow tey si junni bii ngay joxe hmm. mun nga xëy chaque six mois ñu tirage nga dem siyaare Seydina Muhammad génn sa dem ba ñëwaat doo fay dërëm mun ngaa xëy ñu jox la million doo ko remboursé da ngay dem liggéey loo ci am yaa moom mun ngaa xëy ñu jox la oto ngay dem di ko liggéey mun sa doo ci fay dërëm mun ngaa xëy am terrain ci junni boobu ngay joxe sak weer kon nag junni boobu euh, nii ngay foraatoo ci yaay ja maa ngi lay ñaan boo ñëw tey yaay ja di jël produit nga fexe indaale cinq mille bokk ci projet Riyad boobu pour bu ëllëgee chéri ko ko nga ma dégg nga del ñu waat naan labbayka laahumma labbayk te yàlla mën na ko mun ngaa xëy am ci terrain mun ngaa xëy am oto jox ko sa doom wala nangam waaw adduna nag moom lu ne gëm-gëm la rek kon nag maa ngi lay invité ni nga duggee ci yaay jax euh, weer bu jot ngay joxe cinq mille ci Riyad pour bu nga mun cee gis sa bopp di sant ñëpp ñu lay sant di la gërëm bi am mbégte ci fii nga ñu dalal ci Touba Pikine ci sa mm. place bi nga xam ne yaa ngi koy jaay bokk ci ñi nga xam ne dañuy ñëw ci yaay ja di bénéfice omo ak madaar ak yooyu yàlla na yàlla suñu boroom def bu déwénee bu ma fiy ñëwaat fekk biir màkk laa la indi wala terrain laal la indi wala leen dal yàlla am na ko mën na ko mën na ko ci def rek jërëjëf ok merci merci ok jërëjëf yàlla yow yaa